الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانصب وإلى ربك فارغب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 نيجي بتاي صحيح امام البخاري عليه رحمه ورضوان الباري غيسون نانتي ستاب دين جوتاي بي ويسو تامبالي وون نانتي كتاب التيمم وكتاب التيمم وقول التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه <coughs> مانام كتاب تيرب تيم ak wax bi borom bi subhaanahu wa taala wax ne su fekkente ne amoo leen ndox te <coughs> na ngeen dubli ci pàkk kon boo xamante ne bu laab la bu teey la te ngeen masaa seen xar kanam yi ak seen loxo yi ci moom gisoon nañ tamit buntu bi nga xamante ne daf ne rek baabun daa di indi xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne ci la réeraloon caqam bi ba nga xam ne ci la àndoon ak ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci ab tukki te mu nekkoon aw xare waaye bi nga xamante ne nekk fu dañoo nekk foo xamante ne amutoon ndox ñu daal fay taxaw ba la tax sabab booba tax aaya tiim wàcc gisoon nañu xadis boobu ci bunt boobu ak lëkkaloo gi mu lëkkaloo bunt boobu naka noonu gisoon nañ ci xadis sayidna jaabir ibn abdullahi al radiallahu taala anhu mi nga xamantene yenen yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ni won da hadith ti hadith sayyidina jabir bi radiyallahu taala bi jere ci muhammad ibn sinan te mom mooy muhammad ibn sinan al bahili rahimahu allah taala ak said ibnu nadr ñom ñaar ñep ñu solo ci hushaym ibn bashir ñom ñu solo ci sayyah te moom mooy Sayyaar al-Anazi te mu ñu wax Abul Hakam rahimahullah moom moom mooy Sayyaar te moom ci suñu jotaay bi weesu jotuñoo wax daanaka ci ay mbiram moom ak maanaam moom mooy Sayyaar ibnu Wardaan rahimahullah taala Abul Hakam al-Anazi rahimahullah al-Wasiti كم هشيم لنيوم يانيب أي واسطيرين رحمة الله عليهم مم صلونة تاريخ ابن شهاب أبو وائل تمم شقيق ابن سلمة أك أبو حازم الأشدعي أك عامر الشعبي أك وائل أبت المصلات الشعبي لك صلونة رحمه الله نغنوني صلوات مم ويكمل لمم شعب أك مسعر أك سفيان بن سعيد الثوري أك خلف بن خليفة أك هشام بن بشير رحمة الله عليهم أن ينال في نكت هشام بن بشير مومو سروج رحمه الله تعالى ثقة سبت لا كم إمام أحمد رحمه الله تعالى من جن أن تيميري رؤات أن يرفق أجنار جنان كردائر تبي صلى الله عليه وآله وسلم مومو جليت يزيد بن صهيب تنكو الفقير Euh, ngir maanaam du ne du ne ñàkk du ne woon dafa ñàkk waaye dafa amoon ak euh, ak maanaam ndigg lee doon ndigg lee doon metti maanaam mu nekk koo xam dafa néewoon doole ngir ndigg luy metti loolu tax ñu ko doon wax alfaqir euh, moom imam al buxaari imam muslim imam abu daawud imam annasaay imam ibnu maaja ñoo solo ci moom raxmatullah ñoom kutubu sitta waa asxaabu kutubu sitta solo wuñ ci moom comme taalibeem yi Ah, naka noonu ñu ko daan dàkkantele abu usman te bokkoon na ci waa kuufa gannaaw ga mu dem makka wàcc foofu soloo na nag ah, ci seydna jabir ibn abdullah radiallahu taala an te moom mu la soloo xadis bi ak abdullah ibnu omar ibnu abba ah, ak abdullah ibnu omar ibnu alxataab ak abu said alxudri radiallahu taala anhum ci ñooñu la solo misar ak almasudi ak kuufi yu ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon kuufa ñooñu ñoo soloo ci moom amma euh, te maanaam moom itam bokk na ci ponkali sëriñ ñi gën a màgg ci imam abu xanifata an nu'man euh, rahimahullahu taala te gàddaayoon na dem ci seydna omar ibn abdul aziz radiallahu taala an al jamii mu jële ci jaabir seydna jaabir ibn abdullah waxoon nañ ko radiallahu taala mu ne yenente bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ni ootiitu xamsan maanaam euh, ci jotaay bi weesu dañu jotul wona wax ci ñaar ñoon wala motax ñu ñu dal di ci delu wat manam mu day jox nañ ma jurom yo xamne lam yo taxaw ahadun qabli joxu ñu leen manam jurom yo xamne joxu ñu leen ben yenent luma ma mu bok ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi nga xamne ne daf koo jagoo wëllif mboolem yeneen yenent yi alayhimu salaatu wassalaam Euh, bokk na nag ci li nga xamante ne moom la wax ca gannaaw ga euh, euh, wala boog la mu wax ca digg ci ñaareelu wax ja mooy wajolat liyal ardu masjidan wa tahura te dafa la neef na ma suuf si mu nekk jàkk waaye mu nekk loo xamante ne tamit dafa laab te laaba laate gisoon nañ loolu bunt boobu gisoon nañ <coughs> ay masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci loolu waaye euh, incha allah taala masala bi ñu waxoon ne danañ ko gis te moom mooy pàkk yi nga xam ne ñoom ñoo dagana euh, tiime ak wuute nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim inchaa allahu taala daañ ko gis ca euh, baabu assaidu tayibu waduul muslim inchaa allahu taala foofu dañuy yaatale masala boobu moom mooy gën a yelloo allah kon gisoon nañu baabu ida lam yajid ma wala turaaba buntu su fekente ne nit ki amul ndox du caageen suuf loolu mom moy masalatu faqidu tahurayni loolu tamit amana na dañ ci xamé ni imam al buxaari rahimahullahu taala mazhabam ci buntu bi moom mooy suuf manam ne luñuy comme ni nga xamantene ne mu la nekké mazhabu shafii ak xanaa bi lay alayhim ne manam suuf mom moy li nga xamantene mom lañu la ñu timé wayé lu démé nek xeeru dënnu yi ak yu mel non kenn mënu ci timé ci waxu shafi'i ak Xanaabilay rahmatullah alayhim tekkantal gi ci aju ci buntu biñ doon wax légui insha allah taala daañ ko ci leeral buñ ca yegg see gisoon nañ ci kon hadithu sayyidat aisha bi radiyallahu taala anha bi nga xamantene ci la doon wax manam muy masala bobu waxon nañ ci suñu jotaay bi wessu ne mom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tuddé masalatu faqidut tahurayn masala ki nga xamante ne dafa fàddule li ñaari euh, mbir yi nga xam ne moom lañuy euh, mën a laab maanaam moom mooy yi nga xam ne ñooy laab te laabalaate insha allahu euh, jotaay bi weesu gisoon nañu alhamdulillah li nga xamante ne moom moo aju woon ci masala boobu comme ni nga xamante ne noonu la waxe woon ne ba ñu demee ci yenent bi sallallahu alayhi wa julli wala boog ba leen julli dabee ci tukki ga muy xadisa sayidat aïcha bu radiallahu taala an bi mu njëkk radiallahu taala anha bi mu njëkk indi dafa ne fa adrakathum salatu wa laysa maahum maun fa sallaw maanaam ne bi nga xamante ne moom lañu amuñu ba ñu amoon ndox julli fekk leen fekk amu maanaam dab leen fekk amuñu ndox boobu te bu booba dañoo julli maanaam dañoo julli ñu xamante ne kon loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li jaaru ci masala boobu ngir ne tiim wàccul woon mu daal di taxaw taxawaayu ko amul lu mu mën a tiimee bu boobaa loolu euh, moom mooy mazhabu xanaabilay rahmatullahi alayhim ak lu bëri ci waa ahlul xadis maanaam waa ahlul xadis ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñaare dañuy faral di yëngatu bu baax ci xadis te ñaare bokkuñu ci mazhab yi wala bokk buñ ci bokkee tam maanaam bu ñu amee seen mazhab tamit ñoom lañuy ñuy wax waa ahlul xadis rahmatullah alayhim ñoom ñaare euh, loolu moom mooy nekk seen mazhab euh, léegi nag ñu war a gis insha allahu taala ci baabu tayammum fi lxadari ida lam yajid al ma wa xaafa fawta salaa maanaam baabu bunt at tayammum tiim fi lxadari ci teewaay maanaam bu fekkente ne dañoo teew te tukki ndax nit ñi ñett lañu ku njëkk ki moom mooy euh, ki nga xamante ne moom moo nekk ci moom mooy euh, euh, al muqiim ki nga xamante ne moom mooy ki teew loolu moom mooy kon ci li mu nekk alxadar la tudd mooy teewaay maanaam mu nekk ci dëkk gi mu dëkk ñaareel bi ci des moom mooy al musaafir ki nga xamante ne dafay tukki ñetteel bi moom mooy ki nga xamante ne moom xukmul muqiim la am maanaam dafa am àttey ku teew loolu moom mooy ñetti ñooñu amma ki nga xamante ne te moom mooy ki tukki waaye tukki ba soriwut wala boog maanaam soriwut ba tax mu ñu mën koo jox àtte yi ki tukki waaye itam wala boog mu mën faa dem toog fa jamono joo xamante ne tamit ëpp na jamono ji nga xam ne moom la ñuy may ay yoonal maanaam moom la ñuy woyofalal mbiri kii tukki bu boobaa loolu kooku tamit àtte yi ki ki ki teew la amee loolu moom mooy kon ñetti ñooñ léegi nag fii imam al Buxaari dafay wax mbiru ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñaar ñi nekk ci cat bi maanaam mooy ki teew ak ki yor ak tey ki teew mu ne ndax ñoom ñi kooku mooy moo tax mu jëfandikoo baatu alxadar maanaam mooy teewaay ida bu fekkente ne lam yajit amut almaa andox maanaam mooy bu fekkente ne dajut almaa andox waxaafate mu ragal fawta salaati e, faat faat du julli maanaam faat du waxtu julli loolu la ci nam wax jii nag imam al buxaari rahimahullahu taala kon masala bii da koo tënk ci ñaari mbir moom mooy bu njëkk bi moom mooy nit ki nekk ku teew wala boog mu yor àttee ku teew ñaareel bi ci des moom mooy mu ragal waxtu wi génn ndax fu fekkente ne dafa teew te ragalul waxtu wi génn loolu bu boobaa loolu yeneen atte moo ci aju inchaa allahu taala daan ci ñëw ci xadiis yi nga xamante ne moom lañu ñu dëgmal inchaa allahu taala waaye am maa fii moom masala bii te moom mooy masala ki nga xamante ne dafa teew ba noppi ragal waxtu wi génn kooku ana naka lay def loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute li ëpp nag ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daana maanaam ñoom jàpp ñu ne loola euh, war naa man maanaam jàpp nañ ne loola war naa mën a ne ci kaw ñu gis ne ndox amul du tout maanaam mooy charte yi nga xam ne moom la ko imam al-Bukhari allah taala teurele te insha allah taala teqantal yi nga xamantene ñom ñoo ci aju dañ ko gis ci hadith sayidna abu juhayb radiallahu taala mu bi nga xamantene mom lañu jëm mu ne wa bihi te loolu manam moy fu fekkente ne nga tew waye nak nga ragal waxtu génn nga daal tim mom la wax ne qala mom la wax ata te mom moy ata ibn abi rabah rahimahullah te mu ne wa te waxna al hasan te moom mooy ibnu al abil xasan al basari rahimahullahu taala amma waxu ataa bi imam abdurazaq assanaani rahimahullahu taala indi na ko ci musannaf fam bi naka noonu al imam ibnu abi shayba rahmatullahi alayhima waaye alxasan te moom mooy al basari rahimahullah moom dafa wax fil maridi ci ki feebar indahu te nekk fa moom almaa u ndox wala yajidu te amut man képp ko koo xamante ne yu naawilu woo dana ko ko jottali mu ne kooku yata yam mamu day daal di tiim maanaam moom mooy lan su fekkente ne nit ki am na ndox waaye amul ku ko ko ñu ne waaw mu ne lu muy def ñu ne kooku daal day tiim mi ngi mel ni teen bi moom mi ngi fii wala robine baa ngi fii waaye nag nit ki moom dafa feebar mënta jóg dem jëli ji ndox mi ñu ne waaw bu boobaa nu muy def nu muy def ba julli ñu ne ah kooku de xanaa day daal di tiim kon loolu moom mooy charte bi nga xamante ne moom lañ ko tërala la loolu nag su fekkente ne euh, nit loolu moom nag moom mooy li nga xam ne mooy mazhabu jumhur rahmatullah alayhim inchaa allahu daal ñu gën ñëw ci masala bi bu ñu ci ndax shafii rahmatullah alayhim du ñu yoonal ki nga xamante ne moom mooy ki teew mu mu tiim wala bok su fekkente ne def nako dafa wara fayat ay julleem manam naka non dafa wara fayat ak ay di len ci ñëw insha allah taala mu wa aqbala dëgmal na ibnu umar te moom mooy sayidna abdullahi ibnu omar ibnu al-khattab radiyallahu taala anhu mu ne mu ne moom aq dëgmal na min ardihi ci suufam sa bil jurufi ca fu ñuy wax al juruf maanaam juruf nag dafa am ñaari maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy foo xam ne xeetu kàmb la boo xamante ne ak mbartal la nga xamante ne taw bi daf fay daal di wàcc di di maanaam daf fay daal di wàcc waaye fekk mu nekk ci buntu dëkk Madina waaye nag am na boroom xam-xam rahmatullah lu ci ëpp dañuy wax ne baatu jurufu ab bërëb la bu ñu xam nekk boo xamante ne Madina wetu Madina la nekk ñaare sax boo fa nekkee da ngay séen dëkku madina yi maanaam da ngay séen dëkkuwaay tabaxu madina yi maanaam ñu ne kon sayidna abdullah ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma dafa tukki woon ba dëgmal foofa waaye fa xadarat mu daal di teew al asru tàkkusaan fekk fa mu nekkoon bi marbadi mi ngi nekkoon ci géttu ak naam gëllëm yi maanaam ci géttu gëllëm yi la nekkoon fa sallaa mu daal di julli maanaam Euh, summa topp daxala mu daal di dugg al madinata madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam washamsu fekk jant bi murtafiatun mu ngi aji yëgitiku fa lam yu'id te baamuwul julleem maanaam li nga xamante ne nag moom moo tax imaam al buxaari rahimahullahu taala wax fi bu ñu ko xoolee xaqiqatan gisuñu fi mu tudd fi ne fu mu tiime waaye ci yeneeni riwaayaat yi nga xamante ne ñooy yi gën a mat ci wax ji foofu la ñuy gisee ni imaam maanaam ne dafa tiimoon moom seydna abdullahi ibn omar rahima radiallahu taala anhuma moom kon moom moom loolu moom la imaamu malik ibn anas rahimahullahu taala toxal ci mu wattaam mu ne kon nag boobu foofu dafa tiim moo daal doogu dugg ci biir euh, dëkk bi ba mu tiimee ci dugg ci biir dëkk bi euh, maam daal di julli ba mu demee ca biir ci la gis ne jant bi maanaam jant bi continuer di yëkkatiku maanaam loolu li mu ci namm mooy imam al-Bukhari rahimahullah taala li mu ci namm mooy ne ki nga xamante ne dafay julli maanaam dafa tiim fekk dafa tukki woon bu fekkente ne ñëw na ci biir dëkk bi te am ndox itam du baamu julleem maanaam loolu la namm ci wax ji maanaam bu boobaa ndax ba muy julli dafa dafa dafa nekkoon ci tukki loolu moom daanaka mën nañ ñi mazahibul arbaa wala boobu borom xam-xam ne daanaka ñoom ñëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci loolu ngir ne ki nga xamante ne dafa tiim ci fekk mu ngi woon ci tukki bu fekkente ne dafa dugg si ci biir dëkk bi fekk na tukki gi jeex na bu boobaa du du baamuwaat ju du baamuwaat mbir mi du baamuwaat julli bi lulul ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy sopp mu baamuwaat ko maanaam dañuy sopp mu baamuwaat julli gi ngir ne léegi am na ndox maanaam ngir ne kooku day taxaw taxawaayu ki nga xam ne dafa ñàkkoon ndox waaye ba noppi nag am ndox waaye nag bu boobaa lënt-lënt bi moom mooy sayyidna abdullahi ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma ana naka lay def fekk mi ngi seen dëkk bi waxtu jot mu mu dem tiim julli te xam na ne bu yeggee ci dëkk bi fee dana mën a am ndox bu boobaa loolu lan mooy nekk àtte bi bu boobaa li nga xam ne moom mooy nekk tontu bi mooy ne comme ni ko lu bëri ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tontoo ci wax ci ci euh, hadis wala asaru sayidna abdullah ibn omar ibn xattaab bi radiallahu taala anhuma mooy ne dafa gisoon ne dafa doon ragal jan maanaam waxtu wi génn maanaam dafa ragaloon ne waxtu wi dana génn moo tax mu daal ni mu daal di xaaral ma tiim dem dugg ci dëkk bi maanaam ma ma dooga continuer ma doog a yeggale sama tukki gi loolu moom moom moo mooy li nga xamante ne mooy euh, moom mooy moo tax mu doxale noonu loolu nag euh, kon daf ñuy yóbbu ci ay masala bokk na ci masala yi nga xamante ne moom la ñuy indi moom mooy su fekkente ne dañoo teew dañoo teew euh, ndax da wala boog dañu dañoo tukki kon wal bu boobaa ban xeetu tukki mooy dagan ci ma daadi ciy tiim ak ban tukki moo ci dul dagan li nga xamantene mom moy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te ñom ñoy fuqahaa maliki yi sa xanafi yi ak maliki ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñom daganal nañu wala bok maliki ak xanafi yi naam maliki ak xanafi yi rahmatullah alayhim ak sa xanaabila yi naam ki nga xamantene mom moy ki tukki mu daali di tim waye tiim rahmatullah alayhim daganal nañ ko waaye ci kaw charte tukki boobu bañ a nekk tukki bu xaram maanaam bu fekkente ne tukki bi dafa xaram bu boobaa faw day daal di fay day daal fay euh, tiim googu maanaam julli googu faw da koy fay ngir ne maaliki yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim euh, euh, maaliki ak xanaa xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom tukki gi mu dagan wala mu xaram loolu amul effet ci Euh, ci li nga xam ne mooy ruxas yi maanaam liñ lay woye falal yëpp xaraam gi ak dagan gi amu ci effet maanaam tukki gi rek moom moo am effet loolu moom moo tax Shaafi'i rahmatullah alayhi ñu jàpp ne mbir mi noono ah, du dana am e, day am effet ngir ne bu ñu waxee baatu ruxsa lu ñu woyofal maanaam ka nekk ca la tax ñu koy woyofal moo tax ñuy wax waaye ka nga xamante ne daa nekk ci mooy yàlla kooku kenn du ko woyofal dara loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne kon kooku waruta waruta maanaam tiimam kooku tiimam kenn du ko compter euh, dégg nga loolu kon moom mooy euh, masala boobu ñaareelu masala bi moom mooy ne bu dee euh, lool wala boog yeneen yi ci des insha allahu taala danañu ci ñëw amma ki nga xamante ne moom dafa ñàkk ndox complètement ki nga xamantene dafa ñak ndox waye ragal waxtu wi génn lolu dinañ ci ñëw insha allah taala wala te yaakaar ndox insha allah taala dinañ ci ñëw ci buntu at-tayammum attayammumu fil xadar insha allahu taala Hmm. wala waaw wala bokk ci ñëw rek insha allahu taala mhm. mu ne qaala bil isnaadi almutasili fi awali alkitaabi ilayhi xaddasanaa yaxya ibnu bukair moom nañ ko gis nañ ko gisati ko mooy yaxya ibnu abdullah ibnu bukair al qurashi al maxzumi rahimahullahu taala dàkkantaram nekk abu zakariya al qurashi moom waa misra la rahimahullahu taala gannaaw ba mu nekkee waa Sham euh, moom comme niñ ko gisoon taaliba Layth ibn Sa'd la rahimahullah mi ngi gane àdduna 155e année génn àdduna 231e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo moom lu bari ndax solo na ci moom 178 hadith imam muslim te imam al bukhari rek mo solo ci mom ci lu amul kenn ku dox ci digganteem ak mom imam muslim mom mi ngi solo ci mom ñaari hadith waye dafa am ku dox ci digganteem ak mom imam ibn majah solo na ci mom ñetti hadith waye am na ku dox ci digganteem ak mom naka non imam at tirmidhi mom tuddu nako ben benn yoon mu ne qaala xaddathana lays te mooy ibnu saad rahimahullahu taala muy imaam bu màgg boobu abul xaaris al lays ibnu saad ibnu abdurahman alfahmi alqalqashandi rahimahullah mi ngi gane àdduna 94e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an jaafar ibn rabia mooy jaafar ibn rabia ibn sharabil ibn hasanat al kindi rahimahullah dàkkantalam nekkoon abu sharahbil moom it waa misra la kom imam lays ak yaxya ibn bukayr rahmatullah alayhim moom mi ngi génn àdduna cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi nga xamante ne moom ci taabii taabii yi la bokk tamit comme imam al-Lays rahimahullahu taala moom moom tam ci siqaat yi la bokk rahimahullahu taala euh, moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta anil araj moom mooy euh, al araj abdurahman ibnu hurmuz ibnu kaysar madani rahimahullahu mu gën a ci al nekkoon abu daawud ak abu xaasim euh, ñaari dàkkantal yooyu la siiwee woon rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne annahu qaala nee na samitu dégg naa umayran muy umayr mu ne mawla abdullah ibn abbas <coughs> mu ne samitu umayran daal di teg ne mawla ibn abbas maanaam mooy ki nga xamante ne euh, jaamu maanaam mawla la ci ñoom ibn abbas radiyallahu anhu waaye mawla umul fadli la umayr euh, euh, mawla umul fadli la radiyallahu taala te umul fadli moom mooy Euh, baayu mooy yaayu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ba mu nekkee mawla maanaam muy jaam bi nga xam ne Ummul Fadli moo ko goreel ñu am alliance boobu alliance boobu looloo tax doomi euh, Ummul Fadli yi dañuy am alliance boobu ak moom loolu moom moo tax ñu naan Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma <coughs> dakkatal nekkoon abu <coughs> abdullah al hilaali euh, rahimahullahu <coughs> moom mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci taabii la bokk rahimahullah mu ne annahu qaala nee na aqbaltu dëgmal naa ana man wa abdullahi ibnu yasaar te abdullahi ibnu yasaar tamit mawlaa maymuna la maanaam di mawlaa ci maymuna maanaam muy jaam boo xamante ne tamit ña ko ka mooy sayyidat maymunata رضي الله تعالى عنها زوج النبي دي سخنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم نانا نو اند حتى مت دخلنا ني دال دغ على ابي جهيم ابن الحارث الصف الصمة الأنصاري أبو جهيم ابن الحارث الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم صحابي نوي لبوكر رضي الله تعالى moom bokkutoon ci saxaaba yu mag yi radiallahu taala anhu mi ngi génn àdduna ci jeexitalu jamonoy Seydina Muawiya radiallahu taala anhu mu ne aqbalan mu ne fa qaala mu ne mu wax abul juhaym bokkut ndax abul juhaym ñaari saxaaba lañ ñoo xamante ne ñoom ñoo tudd noonu kii moom mooy kenn ki abul juhaym al ansariya radiallahu taala anhu mu ne aqbala dëgmal na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min nax wi ci wàlluk bi'ri jamal ab teen la bu tuddoon bi'ri jamal bu nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fa laqiyahu mu daal di daje moom rajulun ab waay nee nga dégg nga fa sallama mu daal di nuyoo alayhi ci moom mu daal di koy wax assalaamu aleykum loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy sunna su fekkente ne dafa am ñoo xamante ne dañoo tase ci ay ñaari jullit loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li jaadu te moom mooy ñu nuyoonte ki nga xamantene mom sunna bi nak mom moy nuyo bi li nga xamantene mom moy fay bi mom farata la comme ni nga xamne non la ko alquran waxe wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sa yo xamantene nuyo nuyoo nañ leen maanaam jox nañ len ab nuyo bu boba ni ngeen nuyo nuyo bu bu bu gën rafet boba war bok bu ko tolloog mom manam te moy bu nee assalamu alaykum li gën néew li nga wara mëna tontu moy wa alaykum assalam ñaareel bi ci dess mom moy buñ neela assalamu alaykum wa rahmatullah nga daal di toon assalaamu wa alaykum assalam wa rahmatullah moy li gën niw buñ neela assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh nga tontu tamit lu tollu non moy li gën niw amma ku la wax assalamu alaykum li gën rafet moy nga tontu ko wa alaykum assalam wa rahmatullah wala bok wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh waaye nag amma euh, bu fekkente ne yegg nañ ba ci wa barakaatuhu bi moom moom mënoo def leneen lu dul yem foofa waaye nag kon loola ñu déggee ci ne rek loola lañ ci jublu maanaam mu nuyu ko li muy tekki mooy baatu asalaamualeykum comme ni nga xamante ne lool te loolu moom mooy nuyoo nuyoo ci lislaam mooy asalaamualeykum nuyoo du bonjour na nga def ça va euh, wala ñëw di tudd santu nit wala baatu salaam noonu rek salaam kese loolu du nuyoo. assalaamu alaykum loolu moom mooy nuyoo bu boobaa li nga xam ne am na sax ñoo xam ne dañuy bind ay SLM wala S W maanaam M R xeetu yoo xamante ne yaa subhaanallah B S W R B loolu mooy lan yal nañu yàlla sàmm ah loo xamante ne maanaam. دنجا كم حتى يعنى وقت وقت صلاة الله وتسليمة آه، آه، مع الصلاة والرضا تعظيمة دنجا ولا ولا تكن تفردها أو ترمزي ولا خلا الأصل خلاف أحمدي كم الإمام السيوطي وحر رحمه الله ما ندري بند بيرمي دو مانيير كومبليت لول موي ليغا خامن موي لي باخ فوالا مي بان كو ديف ديكو ديكو ديكو ديف اي رمز اي اي اي اي رمز manam ay ay comme sallallahu alayhi wa sallam nga salam wala radiyallahu anhu bin rëdd rd wala rta comme boudé ci ki wala yooyu yëpp loolu dafa ak sunna loolu dafa ak li bax ak kuko ko def lolu baxul voilà lolu mom moy li nga xamantene moy li deppowul ak sunna deppowul ak li bax voilà lolu mom dafa wara nek luñu wara xam ay SLM lolu moy lan waxal assalamu alaykum xolal sheytaane ni mu mané doomu adamay ba nga xamantene ne yiw yu non da len koy ñakklo bu mu xamé yiw u mak yu ci nek ngir mu lo len ko da len di def day abréger len ko te mi nga xamné mom la comme li borom xam-xam yu toxal rahmatullah alayhim moy ne ku ko njëkk wax te imam Asyuti yi nako ci tadribu raawi rahmatullah sharh taqrib an-Nawawi ak imam al hafi rahmatullah alayhi tamit ak ñeneen mooy na ka ko njëkk wax ka ko njëkk bind loxo bi dafa semb ki bi njëkk bind sal am maanaam abrégé sallallahu alayhi wa sallam bind soit laam ayin miim kooku loxoom dafa semb waaw dëgg kon loolu ak yeneen ak yeneen donc loolu ala kulli maanaam kon mu ko naka noonu ci la ñuy xamee ni joxe loxoog biis ak eh, yooyu yëpp du loolu mooy nuyoo de. loolu day day day mottali nuyoo gi waaye loolu xam ngeen diggante góor ak góor lay am amma diggante góor ak jigéen loolu ñëpp xam nañ ni dafa xaraam ba mu des ci ñi nga xamante ne ay code armal lañ ak yu mel noonu ñàkk a yeewu ak ñàkk xam dëgg mooy di ko jéem a layal ak di ci am dara loo ci wax vraiment loolu mooy ne yow xamuloo dara dara vraiment te ku mat a yedd nga te ku nu war a ku nu war a noppiloo nga yàlla nañ yàlla sàmm. dégg mu daal di wax ne kon euh, gan mu daal mu daal ko nuyoo falam yorot da waaye delloowul alayhi ci moom annabi yu yenent bi <coughs> sallallahu alayhi wa sallam fekk boobu dafa nekkoon ci teen dafa euh, euh, dégg nga dafa maanaam dafa dëgg dëgg ma lool maanaam ci wàllu foofu la woon ci wàllu teen bi <coughs> waaye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam Ah, ki nga xamante ne nag moo ko nuyoo Abul mu la moom ci boppam comme ni ko imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ah, toxale maanaam ci riwaayam moom nee na moo tax waaye moom waxu ko te loolu tamit dañ cey xamee ne ñu xam kat moom la mbir mi concerné histoire bi loolu bariwul solo li am solo mooy acte bi nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw mu daal di ci teg ne xatta ah, mbéte aqbala mu daal di dëgmal alal jidaar yi ci teen wi maanaam bi nga xamante ne ci la dëgmal ci teen wi fa masaxa mu daal di masa bi waj yi ci xar kanamam waye day ak loxoom yi maanaam mu daal di masa xar kanamam ak loxoom yi suma topp radda maanaam mooy mu daal di tiim kon nga gis ne loolu dafa tiim ci li nga xamante ne moom mooy euh, mooy mooy miir bi maanaam miir bi ci la moom la tiimee euh, loolu ndax jidaar day tekki sàkket day tekki miir tamit mooy mooy li nga xam ne dañ koy maanaam tabax day taxaw taxawaayu tabax rek boo xam ne dañ koo dégg nga loolu fa masa mu daal di masa bi waj yi ci xar kanam mooy ak loxoom léegi su ma topp nag radda mu daal di delloo alayhi ci moom assalaamu nuyoo gi maanaam mu daal di koy tontu nuyoo te loolu farata la loolu moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy tontu nuyoo bi lii nag li tax mu ko moom mooy comme li mu waxoon ci beneen xadis bi nga xamante ne dañ koo fekk muy muy jàpp noppeegul ci jàpp gi ñu daal di ñëw romb ko ne ko asalaamaaleykum mu daal di jàpp ba noppi daal di daal di doog a tontu waaleykum salaam daal ne nag karitu an azkura allah wa ana ala gayri tahara dama siboon di tudd yàlla fekk ne man nekkuma woon ci laab maanaam loolu laa doon bañ bugguma woon di tudd turu yàlla fekk nekkuma ci laab ngir ne lan ngir ne baatu asalaamu turu turu ci turu yàlla yi la bokk moy assalamu alaykum amana nak la tax mu wax ko moy de le fait que mu tek ci wa rahmatullah manam ak jurmu nek yàlla ala kulli xaalin kon lolu dal lay wax waye nak wax ji lu upp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu wax ne dañ ko folli te la ko folli mom moy li sayyidat aisha radiyallahu anha wax ne kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yadkuru llaha ala kulli axyaanihi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da daan tudd yàlla ci mboolem jamonoom yi maanaam kon mboolem xaal yi mu nekk def ci daan tudd yàlla loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy nekk xadis euh, bi nga bi nga xam ne moom mooy aayatu tayammum ba mu wàccee ci la ñu tàmbalee nag di maanaam di mooy aaya boobu ci lañ tàmbalee di daal di mooy nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu ko woon def daanul kenn daanul fay fekk amul woon jàpp ala kulli xaal faw da daan tiim wala boog mu ko mu jàpp doo a fay nuyoo wala yu mel noonu maanaam bépp zikar bu mu doon def tudd yàlla bu mu daan def loolu la daan def ba aaya bi wàcc ne yaa ayyuhal ladina amanu ida qumtum ila salaati maanaam ay yéen ñi nga xam ne gëm ngeen dëggu soo leen jugee dem ci julli bu boobaa nag nga xam ne léegi dafa fool folli lépp loo xamante ne am njàpp farata la ci doon ba mu des julli ak lépp loo xamante ne njàpp maanaam munu cee ñàkk waaye maanaam ci cosaan tudd yàlla léegi zikar loolu dootul laajati yor njàpp loolu moom bi aay boobu wàccee ci la nekk loo xamante ne lu ñu folle la léegi nag mu daal di des tamit fii yeneen i masala bu njëkk bi moom mooy ne lii dafay tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy euh, nuyoo maanaam moom mooy euh, moom mooy euh, tiim maanaam ne dagan na ñu daal di tiim ci teewaay ngir ne Euh, tiim gii nga xam ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci biir madinatul munawwara la xewe woon ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bu boobaa tontu bi mooy waaye loolu tegtalewul ne tiim googu yëkkati na toj waaye bu boobaa liñ ci tontu moom mooy su fekkente ne yëkkitutoon toj kon du du jar yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di di di di ko def doog doogo doog a fay nuyoo waaye liñ mën a wax mooy mënuñu ci jullee te loolu daf ñuy yóbbu ci masala yéene maanaam ngir ne tiim boo fekkente ne da nga cee yéene ci toj gi maanaam comme ne damay yëkkati toj wala boog dama ci yéene julli wala ma yéene ci jàng euh, euh, euh, laal kaamilu alquran ak yu mel noonu bu boobaa day daal di ci toj gi te da nga ci mën a def mbooleem li nga xam ne moom la tiim mën a def am ba mu des ci na ci borom xam-xam yi ñu mel ni fuqaha maliki rahmatullah alayhim ne masalan doo ci mën a julli ngir ne ñoom balaa ngaa mën a julli ak shafi'i rahmatullah alayhim fuqaaw maaliki ak shafii rahmatullah doo ci mën a julli lu tax parce que masalan tey euh, ñoom julli gi dafa war a lëkkaloo ak tiim gi euh, loolu moom moo tax ngir ne boo tiimee te julli wuloo ci saa si bu boobaa day daal di yàq li nga xamante ne moom mooy durée bi am maanaam day yàq tiim gi waaye bu fekkente ne ñi ci des na te mooy xanafi yi ak xanaabila rahmatullah alayhim loolu jotoon nañ la ko wax ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal na maanaam ñoom loolu tiim googu day daal di mën a lan daganal seen at maanaam day daal di mën a tax nga mën cee julli waaye kon bu boobaa mu des masalan tey mu daal di yéene tiim maanaam daal di tiim fekk euh, euh, dama bëggoon masalan comme zikar wala boog dama tiim ngir mën a jàng alquran ak yu mel noonu bu boobaa loola dana yi dina ma jariñ loola waaye du ma mën a jariñ ma mën a julli lu tax ngir ne euh, yooyu ñu ngir ne yooyu du ñu farata maanaam tiim du ci farata yor njàpp du ci farata ba mu des ci ki nga xamante ne dafa amee janaaba bu boobaa moom njàng alquran gi farata la ci doon bu boobaa ci ñi nga xamante ne jàpp nañ ne ñu mel ne xanaf yee rahmatullah alayhim loola daañ ci mën a tiim waaye ñu mel ne ci euh, maaliki ak shaafi rahmatullah ñoom doo ci mën a tiim loolu kon moom mooy euh, masala nii yi amma legui nak mu dess masalay batay ñu delu ci wat ci masala bu njëkk bi ngir ne lay wi mo taxoon ñu ñu wat ci masala bi nga xamne moy masala yéene amma masala bi nga xamantene mom moy masala tim fek yaagi tew lolu mbol mbool jumhur maanaam ci fuqaha ay rahmatullahi alayhim dagal nañ ñu manam ñu demee nekk mal xanafi ak maliki ak shafi'i rahmatullahi alayhim dagal nañ ñom dagal nañ nit ki mu wara a tim fek dafa tew ci dëkk bi waaye euh, loolu moom mooy ci ñaari charte te moom mooy bu njëkk bi mooy bu fekkente ne maanaam bu ñu mënee tënk mëneef na koo tënkee ci ñaari charte bu njëkk bi mooy amuloo ndox walla boog am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir maanaam lu demee nekk ku feebar wala euh, ku ba maanaam ba mënul am lu mu ko jot jottali ko comme ni mu nekkee ci asaru Seydina Hasan al Basri radiyallahu anhu ah wala boog ki nga xamante ne mën na koo jottalikoo koo waaye eh, bu ko jëfandikoowee dafay yokk feebaram wala boog mu nekk lu koy feebarloo ak yu mel noonu loolu nag am na ay teqantal ci mazhab bi waaye mënif na koo tënkee noonu maanaam mënif na koo tënkee rek ci ne feebar tàll bu fekkente ne nit ki dafa feebar te bu tiig bu jàppwee te ndox mi fi nekk su ci jàppwee day yéexal feebar bi maanaam day yéexal wérug feebar bi wala mu yokk feebar bi bu boobaa day daal di mën a dagan mu daal di mën a tiim ngir loola su fekkente ne tamit dafa ragal ne su jëfandikoowee ndox mi loola da koy indi indilu feebar loolu itam day daal di dagan mu daal di mën a tiim ngir loola loolu nag euh, ñoom bu ñu xoolee euh, ci suñu ko xoolee ci lu lëmu ni ñoom ñëpp ànd nañ ci donte am na ay teqantal ci biir mazahib yi rahmatullah euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye li nga xamante ne moom mooy li li li Shaafi'i rahmatullahi alayhi dëppoowul ak ñoom mooy ne ñoom bu ñoom d'accord nañ nangu nañu ne ki nga xamante ne dafa ñàkk tiim waaye la tax tiimut maanaam ci biir moom bu dee ci tukki daganal nañ mu tiim ba mu des ci ki nga xamante ne mooy kii mooy yàlla maanaam tiimut masalan damay dem football wala damay seetaani ji match wala yooyu <coughs> wala concert ba lay dem ak yooyu kooku moom du tiim ci ñoom am na ki nga xamante ne euh, te te kooku ñu ci des duñ ko bàyyi muy maanaam ba mu des euh, maaliki rahmatullah ñu ci des duñ ko bàyyi muy lan muy wàññi ay julleem duñ ko bàyyi muy wàññi julleem ngir ne mooy yàlla ndax sax dañ koo teg pour ki nga xamante ne daa nekk ci lu jaadu voilà ki loolu duñ ko bàyyi masalan muy bañ a woor euh, waaye ñi nga xamante ne. <coughs> waaye bu fekkente ne dañoo teew Shaafi'i yi rahmatullah am dañ naan ñun jumhuur de yi ñun ànd nañu ak yéen ci lépp <coughs> ci bunt boobu ba mu des ki nga xam ne nag ñàkk ndox moo tax muy tiim maanaam ñun dinañ ànd ak yéen ci ki nga xam ne feebar moo tax muy tiim waaye ki nga xam ne ñàkk ndox moo tax muy tiim bu dee dafa teew kooku moom ñun duñ ci ànd ak yéen lu dul ne su tiimee ba noppi tamit day fay maanaam kon loolu loolu moom mooy li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi wuutee foofu rahmatullah alayhim ci boobule euh, buntu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne su fekkente ne dañu la euh, wala boog xanafiye yi xanafiye yi ñoom dañu su fekkente ne dañ laa forcé maanaam ki nga xamante ne dañ koo forcé wala ñu tëj ko fenn wala yooyu ba tax mu tiim fekk mu ngi teew bu boobaa moom day daadi day daadi di euh, loolu du du doy maanaam bu jullee bu bu bu bu itam ngir ne dafa tiim waaye terewut bu julli gi weesoo day fay maanaam xanafiyee raxmatalaam ñoom ci loolu lañ ko tënk amma fuqahaa maalikee ak xanaa bi lay raxmatalaam ñoom ñoo ci gën xeetu indi xeetu woyofal ci boobu lay bunt raxmatullaahi alal jamii euh, kon xadis euh, boobu noonu imaam al-Buxaari rahimahullahu taala fii la indi indiwu ko feneen amma imaam muslim indi na ko xadis numéro 369 imaam Abu Daawud indi na ko xadis numéro 329 imaam an-Nasaa'i indi na ko xadis numéro 311 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 17541 ak 24009 euh, kon ñu gis ne waa asxaabu kutubu sitta benn mooy ne euh, ñoom ñoom ñeent ñoo ko ci indi. maanaam muy imam al buxaari imam abu daawud imam imam al buxaari imam muslim imam abu daawud ak imam annasaayi amma imam at tirmisi ak imam ibnu maaja ñoom solowuñ ko ñaareel bi ci des mooy mbooleem ku ko solo ci waa asxaabu kutubu sitta daf ko solo waaye benn yoon rek la ko indi ci téeréem bi rahmatullahi alal jamii mu ne baabun al mutayammimu hal yanfuxu fiihima baabun bunte ngi nii mu ki nga xamante ne moom mooy aju tiim ji hal ndax yan fuxu dafay daal di ëf fii maa ci ñoom ñaar maanaam mooy ñaari loxo yi maanaam li nga xamante ne moom la namm ci wax ji ah, moom mooy ah, wala xadis bee weesu balaa dugg ci bunt bi xadis bee weesu ima ah, loolu Shaafi'i rahmatullah alayhim dañ koy layee tamit ci suuf si maanaam ne li nga xam ne moom mooy li pënd loolu mënef na ci tiimee maanaam ci xadis boobu dañ ko ciy layee ngir ne Euh, miir bi li tax ñu mën cee mu mën teg tiim mooy ne dafa am pënd mu mu tëb dal ci dégg nga kon loolu pënd mooy poussière waaw dafa am poussière bu ci dal mu ne kon nag baabun bunte gi nii mooy attayam mu tiim hal ndax waa al mu tayam mi mu aji tiim ji hal ndax yan fuxu dafay daal di wol fii ma ci ñoom ñaar maanaam mooy ndax ki nga xamante ne moom mooy al mu maanaam kii tiim ndax da fay di euf euf li nga xamantene mom moy euh loxo yi lii nag li tax imam al bukhari rahimahullahu taala indi ko moy ne dafa am ñetti possibilité yo tax ndax hadith bi nga xamantene mom la ci indi yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa euf manam ci loxo mi ginnaw bi mu doré manam mi dor ni ci suuf si dafa euf li nga xamantene mom moy mooy loxo mi léegi nag bu njëkk bi mom moy li tax mu mu euf mu euf mu euf ko moom mooy ne amaan na dafa am lu ciy gaañe lu takk ci loxo bi mu daal koy ëf ngir loola dañ ñaareel bi ci des moom mooy ngir day bañ euh, takkal boppam lu ëpp li nga xamante ne moom moo fi moom maanaam moom la soxla maanaam ginnaaw bi mu ko laale mu takk ni nga xam te léegi da koy ëf maanaam comme ni wala mu dóor ko ni ngir li nga xamante ne ñoom ñooy euh, li ci suuf si maanaam takk yi takk yëpp dañ nga xam ne pënd mi tuuti ci pënd mi rek a ciy des bu ko defee mu mën cee daal di mën a tiime loolu moom mooy ñaareel bi ci des ñetteel bi ci des bi nga xamante ne moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy nekk gi nga xamante ne moom la loola nekk sunna maanaam mooy bu fekkente ne dañuy tiim ñu daal di ëf loxo yi maanaam ngir mën a dindi loolu loolu dafa maanaam mu nekk loo xamante ne sunna la ngir jëf yeneen bi la sallallahu alayhi wa a wa sallam bu fekkente ne sunna la nag bu boobaa dañ naan mbir mi aaju woowul li nga laal nekk euh, maanaam pënd mi am am am am am takk gu bari maanaam bu boobaa da ngay rek ngir ne sunna la maanaam bu boobaa dangay gis ne loolu moom mooy tekkantal bi nekk ci bu fekkente ne dañoo jàpp ne sunna la wala farata comme yenn xanafi yi rahmatullah alayhi lu ñu wax wala boog bu fekkente ne dañoo jàpp rek ne sunna la maanaam ne ne rek ne du sunna maanaam li tax mu def ko mooy dafa am lu ko waral comme li nga xam ne noonu la ko fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim di waxe maanaam ne su fekkee am na lu ci takk nga daal di koy yëkkati faxas ko nga daal di koy faxas dindi ko nga nga def nii loolu moom la ñuy dañuy sopp nga def loola ngir mën a dindi li nga xamante ne moom moo ci moo ci takk wala boog mooy li nga xam ne moo ci mën a gaañe loolu bu boobaa dañuy daal di gis ne kon bunt bi loola lay doon am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shaafi'i rahmatullahi alayhim ñoom loola bokkul ci li nga xamante ne moom lañu yoonal maanaam ñoom yoonaluñ ko lu allahumma ludul comme ni Maliki wax rahmatullah ludul ne dafa am lu lu ci lu lu lu takk lu mën a gaañe wala yow mel noonu walla boog ngir woyofal li nga xam ne moom mooy suuf si pënd bi ngir bañ a gën a mën a taqal sa bopp mu ne qaala moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy indi daal di koy indi ci wàllu maanaam mu mu laajte. comme ni mu nekkee Adam mu mel ni kuy laaj ci mbir mi hmm. euh, ndax loolu bokk na ci li koy gën a dëgër mooy xadis bii ñu mooy xadis bi ñu romb li wane ni li ma li nga xam ne mooy euh, li jumhur moom mooy euh, li fuqahaa Maliki Shaafi'i rahmatullahi alayhim wax ne loolu amaan na mooy li gën a dëgër mooy xadis bi romb te waxul woon ne ëf na ngir ne ba mu laalee la nga xamante ne amul luñ ci ëf gannaaw nga moo tax ëfutoon kon bu boobaa loolu day dëgëral li nga xamante ne moom mooy seen wax amaan na tamit ñu ne ñaar yëpp mën naa ne loolu day daal di aju ci li nga xamante ne moom ngay laal loolu am ala boobaa dañ naan dafay daal di ci fi nga xamante ne moom nga euh, moom nga euh, tiime su fekkente ne da ngaa ci suuf da ngaa ci euh, ci suuf bu boobaa ëf bi wala fëgg gi day daal di nekk lu ñu yoonal bu dee da ngaa tiimee ci lu demee nekk xeeru dënnu bu boobaa ëf gi ak loolu dootul am maanaam taxawaay te njariñ gi dootu fi nekkati wallahu taala alam mu ne qaala bilisnaadi lmuttasil fi awal kitaab ilay xaddasanaa aadam mooy aadam ibnu abdirahman almarwazi alxurasaani rahimahu llahu taala moom mooy euh, Adam moom mu gën a maanaam ndax Abdurrahman mi gën a siiwee ci am ci Abi Iyaas Abu Iyaas moo tax moom dàkkantala moom moo nekk Abul Hasan al Basar al al al Asqalaani rahimahullah euh, di waa Xuraasaan naka doon dëkkoon Bagdaad rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent wala boog wax nañ deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi imam al-Bukhari ak imam Tirmisi ak imam Nasaa'i ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñoo soloo ci moom ci lu kenn doxul seen diggante ak moom maanaam am maa ñi nga xamante ne moom mooy imam Muslim ak imam Abu Daawuda rahmatullahi alayhima ñoom soloo wuñ ci moom benn xadis qaala moom mu ne xaddasanaa Shu'ba te gisoon nañ ne Aaram ibn Abi Iyaas rahimahullah dafay ba faral di soloo ci imam Shu'ba ibn al-Hajjaaj rahimahullah te mooy Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu taala daa katam rek Abu Bistaam al-Waasiti moom Waasiti summa al-Basri ginnaaw ko mu dem dëkk ji Basra rahimahullahu taala Abu Bistaam moom rahimahullah mi ngi gane àdduna 86e ane don wax nañ 82 wala 83e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana al-Hakam te moom mooy alxakam ibnu otaybata alkindi rahimahullah dàkkantaram nekkoon abu muhammad dañ koy wax abu omar wala abu abdullah alkindi rahimahullahu taala moom waa kuufa mi ngi gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi am nañu wax cent quatorze am nañu wax cent quinze euh, rahimahullahu taala ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta euh, رحمه الله تعالى آه، مم آه، بوك نتي نيغا خامتاني موم لا نكو تاغي آه، موم موي كوم لي العجلي رحمه الله تعالى من انا كان الحكم ثقة ثبتا فقيها من كبار اصحاب ابراهيم وكان صاحب سنة واتباع الله اكبر مانام امام نينا دفع الحكم رحمه الله تعالى ku wóor la ku dëgër la ku sax la boroom xam mu fiq la bok ci ponkali ñi doon ànd ak al imam ibrahim ibn yazid an-Naxa'i rahimahullahu taala way tagg yu gën a rëy mooy sunna la borom sunna la ak borom top manam top yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam imam az-Zahabi rahimahullahu taala dan ne aabidun qaanitun thiqa sahibu sunnah maanaam imaam maanaam ku jaamu kotu yàlla bu màgg la koo xamante ne dafa wommatu jëm ci borom tey taxaw lu yàgg di di julli borom subhaanahu wa taala ku wóor ba pare borom sunna la maanaam koo xam ne day tegu ci sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah euh, euh, euh, kon moom waaye léeg-léeg day comme ni آه، نيجنور الإمام ابن عيينة رحمه الله نينا جنة نينا تكوفة مم جنة إبراهيم النخعي أكشع أمم الشعبي معامر ابن شراحبي أكشع الشعبي رحمه الله أمول كان نكوفة نروك الحكم أك آه، تي مموي الحكم ابن عطيبة الكنديبي أك آه، حمد تي مموي حمد ابن سا ابن أسامة حمد ابن أسامة مو مودك كوفة حمد ابن سلامة أك حمد ابن E, e, Yazid ibnu ibnu Zayd ñoom ñaar ñoo dëkk Basara voilà ibnu Usaama moo dëkk Kuufa dégg nga kon ñoom ñaar e, ginnaaw ñaar ñee daal ñaar ñii ñoo fi nekk voilà dégg nga kon moom mu ne an moom mu jëlee moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta comme Shu'ba rahimahullah comme Shu'ba mu ne an Zar te moom mooy Zar ibnu Abdullah ibnu Zurarata al-Hamadani رحمه الله تعالى دكنتلم نكون أبو عمر الله حمداني رحمه الله تعالى بكنا تي لين حمدان تنا برام كومي رحمة الله موتين تي أي بيرم إمام أبو زرعة إمام أبو حاتم الرازي دفن صدوق إمام أبو زرعة الرازي دفن موم بكنا تي لين حمدان تنا وهم Euh, bokk na ci yi nga xam ne dañuy wax ci seeni mbir ci boroom xam-xamu xadiis yi imaam ahmad ibn hambal daan ne maa bi xadiisihi ba's xadiisam amul dara ci ay non euh, moom dañoo boroom xam-xam yi raxma dañoo wuute ci ay mbiram waaye imaam alxaafiz ibn xajar rahimahullahu taala ci taxribu tahzib comme ni nga xam ne noonu lañ koy daa iman saa yu gisee boroom xam-xam ci kenn lu bëri xoolal alxaafis ibn xajar lim ci wax ci taxribu tahzib rawatina wala ci tahzibu tahzib lu tax ndax dafa dajale waxuñu njëkk ñëpp ba pare daf équilibriste la moom maanaam dafay doxal ne day xool li ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax ci moom mu daal di xool équilibre bi maanaam li ci digg bi mu daal di wax wax jooja moom li mu wax mooy ne siqa siqatun aabid waaye rumiya bil irja siqa la جامو كتو يالا بو jaamukatu yàlla bu رحمه الله تعالى مم ذر بن عبد الله ابن ibnu الحمداني رحمه الله waye nak dañ ko jame ci irja manam mom moy murjia ngeen murjia yi waxon nañ seeni bir rahmatullah alayhim euh kon mom muna an Saïd ibnu Abdurrahman ibnu Abza maanaam moom mooy Saïd ibn Abdurahman ibn Abza al-Xuzaa'i rahimahullah taala moom it waa Kuufa la maanaam la xadis bu kon waa Kuufa ñoom wala boog waa Iraq ñoom ñoo koy soloo ah ndax ndax Adam ibn Abi Iyas waa Baxdaad la ki nga xam ne moom mooy ki ci des waa Basra la Shu'ba rahimahullah ñi ci des waa Kuufa lañ dégg nga moom kon Saïd ibn Abdurahman ibn Abza moom waa wa kuufa la rahimahullahu taala ci tabi'i la bokk rahimahullahu taala tamit ci siqati yi la bokk rahimahullah mom nak ci bayam rek la solo solowee solowul keneen kenen kudul ci bayam moy abdurrahman ibn abza ñi nga xamne ñom ñoo solo ci mom moy comme zur al amr al hamadani ak al hakam ak qatada ak zubayd al yami ak ata ibn sa'id Euh, te bëriwul xadis yoo xamante ne moom la solo rahimahullahu taala moom mu ne an abihi jële na ci baayam te baayam mooy abdurahman ibn abza alxuzaayi rahimahullahu taala moom mawlaahu ngir ne euh, bu ñuy fàttaliku euh, moom mu ngi génn àdduna kon ci soixante-dix-septième année daanaka wala boog lu ko jege ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag wuute nañu ci saxa ci soxbaam ndax saxaaba la waaw wala déet sayidna omar ibn alxataab radiallahu taala bi nga xamante ne moom la jël naafi teg ko ci makka dafa taseeg sayidna omar boog maanaam naafi moo ko jël moo ko jël tekk ab ibnu abza maanaam ca makka ndax sayidna abdu omar ibn alxataab daal moo ko fa tegoon moom bi mu fay dem di dellu bi mu tasee moom ñu ngi koy fàttaliku ci kitaabul ilm ba mu ne ko kan nga fa bàyyi kat nga bàyyi màkka mu ne ko abdurahman ibnu abza mu ne ko kuy abdurahman ibnu abza mu ne ko mawlaa jaam bu ñu goreel la mu ne ko mi lu tax nga fay bàyyi jaam bu ñu goreel maanaam jaam daal lu tax nga ko fay bàyyi mu ne innahu qaariun li kitaabillahi aalimun bil faraid moom dafay jàng téere yàlla bi ba pare dafa xam faraid yi moom mooy xam-xamu miraas yi ba mu waxee loolu euh, mu ne ah yàlla daal wax na dëgg ah, yonent bi sallallahu alayhi wa wax na dëgg ndax waxoon na ni xam-xam bii yàlla dana ci jaare yëgiti ay nit waaye dana ci jaaree wàcc ay nit te booba ku mu laaj rek maanaam nga gis daanaka ku ñu laaj rek euh, da nga gis dañ naan mawlaa la fu fu ñu teg ay nit rek ku ñu laaj ñu ne waa ji de mawlaa la yéen a ngi koy gis ci saxeex bi daanaka ñi ñuy ñi laaj ñu ci bëri ay mawlaa lañ danaa ah, di waaw ah, Maodo mawlaa ñoom diw la moom diw naa mawlaa ñoom diw la maanaam nga gis ne daanaka mawaali yi presque ñoom ñoo ñoo ñoo yanu woon xam-xam bi ñoo yanu woon diine ji te loolu jombul loolu jombul lu tax parce que surafaaw yi maanaam ñi ñu naan surafaaw yi ci kii maanaam tegtalewul waxuñu waa kër yeneen bi sa alayhi wasallam jubluwuñ ci ñooñu maanaam mooy ñi nga xam ne ñooy notable yi maanaam loolu ñoo lañ ci jublu. ñaare ñoom du ñu faral di euh, di di faral di yóbbu di jël dëgg-dëgg xam-xam bi lu tax parce que tout simplement dañuy doyloo la seen bàyyi ak seen maam ya nekkee woon te loolu ba léegi dañ koy daal di dañ koy gis da ngay gis ñi nga xamante ne seen bàyyi ak seen maam yi ñoo nekkoon ay notable ci diine yi léeg-léeg am na ci ñu ciy des ba léegi waaye da ciy am tamit ñu bari ñoo xamante ne des googa doot taxu koo demeeti noonu fi mu toll booy xool waaraatekat yi jàngalekat yi ak ñeneen ak ñeneen ñu ci bëri nii war na koo xamante ne da nga ci fekk ne maa maamam loolu la nekk woon moom maamam maamam maamam maamam maanaam nii war nag nga ci fekk koo xamante ne dangay ngay gis ne kii moom kat kër sëriñ si la juge loolu niiw na fi mu boo xoolee rajo yi di déglu maanaam di déglu ñiy def tafsir masalan boo xoolee ñi def tafsirul alquran ngay déglu kii nii wan na koo xamante ne kër sëriñ si la la la la wala ah waaw lu néew a néew la daanaka sax xaw tuuti ñu ne amul boo boo jëlee ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale fiq yi maanaam nga xamante ne bu ñu xoolee ñiy def waxtaani ci téere fiq yu mag yi et cetera yooyu nii wan na koo ci dégg fekk ne kër sëriñ si la juddoo ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu tax parce que tout simplement day dem ba benn moment dañuy xaw a doyee dal mbir moomu loolu nag day dal ñu baree bari donte nag ci saxaaba yi radiyallahu anhum gis nañ ci ñu bari ñoo xam ne tamit seen seen doom yi ak seen sët yi dañoo téye diine ci ngànk ko comme ni nga xamante ne loolu gis nañ ko gisaat gisaat ko ci yenn ci euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ni ki noonu waa kër yeneen bi gis nañ ci ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne dañoo ngànk diine gi téye ko te ñoom la seen mbir gën a yàgg maanaam ñoom ni ñu ko téyee ngank ko mu gën a yàgg ngir ne jamono joo dem di nga fekk waa kër yenente bi sallallahu am ay ponkal ñoo xamante ne daanaka si jamono ji mën nañ ni ñoom ñooy ñoom amuñu maas maanaam te loolu borom subhaanahu wa taala koo def barke la bu mu def ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallam uh, kon <coughs> moo tax uh, Abdurahman <coughs> ibn Abza solo na ci Seydina Aboubacar ak sayyidna Omar ak sayyidna Ubay ibn kab ak sayyidna Ammar ibn yasir radiyallahu taala anhum amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci mom moy comme Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza ak Saïd te mooy bii ak Saïd ibn Abdurrahman ibn Abza ak imam Ash-Shaabi ak Alqamata ibn Marsad ak Abu Ishaq as-Sabi'i ak ñeneen rahmatullah alayhim kon dëkkoon na kuufa euh, euh, te al imam ibnul asir rahimahullah toxal na ci taarixam ne sayidna ali radiallahu taala anhu daf ko doon euh, jëfandikoo ca xuraasaan maanaam da koo jëloon yóbbu ko xuraasaan teg ko fa mu nekk fa kilifa te Seydina Omar ibn Xattaab radiyallahu anhu bokk na ci li mu seede ci moom mooy ne yàlla da koo yëkkati te jaare ko ci alquran maanaam ngir ne yi jàng gi mu jàng alxuraan xam nga mu ko moo tax yàlla yëkkati ko dégg nga moom kon mu ne na qaala nee na jaa dikk na rajulun ab waay ilaa omar ibn alxataab radiallahu taala moom mooy seydna abdullah mooy seydna omar eh, eh, eh, mi ngi génn àdduna vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonente mooy ñaareelu xalifa manam salih khulafa ar rashidin mom la njëkk wax amirul mu'minin radiyallahu taala wa ardaahu wa annabi nga xamantene euh ne kun bok na ci ay jaloorem moy mbolem lu mu wax euh wax nañu ammar ibn yasir wala Umar ibn khattab la ne mbolem lu mu wax yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam ak alquran day dëppoo ko xam te inshallah taala ci kitabul manaqib dan ko gëna gis waye kitabul ilmi tamit am na lu ko jottona gis. deng nga moom li nga xamantene mom moy musnadam yep moy 539 hadith yo xamne muttafaqun alayhi 26 la imam al bukhari weto na ci 34 hadith imam muslim weto ci 21 hadith ci musnadam radiyallahu taala anhu wardahu annabi fa qaala mu ne nee na kon dafa am ben way bu ñëw ci umar ibn al khattab radiyallahu taala anhu fa qala mun ko inni naka man ajnabtu dama amé janaba falam usib te amuma te amuma almaa a ndox maanaam gisuma ndox aw ma ndox te damaa amee janaaba maanaam kon masala bii ci li mu ñu yóbbu mooy ndax ci amee janaaba moom ak ci tiim ñooyam maanaam loolu la ñuy yóbbu imam insha allahu taala daan ci gën a ñëwaat waaye loola fa ci la waxee ne ah, Ammar ibnu Yaasir ah waaye li dina ñëw ci li gën a yaatu ci xadis bi dina gën a ñëw ci gën koo yaatal waaye Euh, ba nga xamante ne wax na ko ndax Seydina Omar Gane moom koon dañu non non moom pour kii rek pour jàpp la rek te subhanallah te déglul li wax wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum min alghaa'iti aw laamastumu nisaa falam tajidu maa'an fatayammamu ànd ak loolu Seydina Omar radiyallahu anhu déggewu ci ne aw lamastumu nisaa wala boog ngeen jonjoog jigéen ñi wala boog lamastum comme ni moom Shaafi dégg di jànge radiyallahu anhu lamastum ngeen laal ak nisaa ak jigéen ñi moom daf cee jàppee ne li muy tekk mooy day toj njàpp waaye bu ñu xoolee aaya bi dañuy gis ne équilibre da ciy am maanaam ci diggante mbir yi nga xam ne daf ko wax fekk maanaam daf ne in kuntum marda soo leen feebaree ñu xam ne ki feebar mënta jëfandikoo ndox kooku day tiim aw wala boog ngeen nekk ci tukki te amut ndox dafay tiim aw wala boog jaa amu dikkee aadun kenn ci yéen minkum ci yéen minal xaayati ca wane ko mooy lii day yàq jàpp kon day waral tiim aw wala boog laamastum ngeen joo ak ak jigéen ñi mooy kon boo leen amee janaaba itam ngeen tiim walam du ma am te amoo leen ndox ci yii yëpp cas de figure yii yëpp amoo leen ndox wala boog ngeen nekk ci at tey ki amul ndox mooy amoo ndox wala nga nekk ci àttey ki amul ndox lan mooy àttey ki amul ndox mooy ki nga xamante ne mënu koo jëfandikoo bu boobaa lu muy def mu ne fata yàmmamu na ngeen tiim na ngeen na ngeen jublu ci sa'idan pàkk goo xam ne tayyiban gu lab na ànd ak loolu subhaanallah Seydina Omar radiyallahu anhu dégg wu ci loolu moo tax moom jàpp na ne loolu tax ñuy tiim janaaba daal déedéet janaaba moom doo ci mën a tiim moom fa qaala mu daal di koy wax Ammaar ibnu Yaasir radiyallahu taala anhu muy saxaaba bu mag muy sayduna Ammaar ibnu Yaasir ibnu Amir Allah Malik ibnu Kinaanata ibnu Malik ibnu Qays ibnu Alxuseyn ibnu Wuzaym ibnu Saalabata ibnu Awf ibnu Xaarisata ibnu Amir ibnu Yaam ibn Ans ibn Malik ibn Adad ibn Zayd ibn Yashjab al Anasi Abul Yaqzan mooy dàqantalam adañoo al badar yi ngir de maanaam ci waa badar la bokkoon radiallahu taala anhu euh, di mooy mawla waa banu maxzum euh, di yéen sa sa mooy ja moom ñoom ay jaam lañu woon comme ni ñu ko radiallahu anhu te moom mooy waa alu yaasir mooy waa kër yaasir moom ah, Ammar ci la bokk mooy doomam ah, naka noonu ah, yaayam Sumayya radiyallahu anha mooy ki njëkk génn àdduna ci lislaam nekk shahid ndax moom lañu njëkk rey ci lislaam Abu Jahlin moo ko rey saay saay bu bon boobu ah radiyallahu anha ah non non yaayam yaayam la Sumayyata radiyallahu taala anha ah. Ah, moom Seydina Amar radiyallahu taala bokk na ci ponkali ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak Yonent bi sallallahu bokk na ci ay jaloorem moo ne Yonent bi sallallahu alayhi ah, dafa wax ne maxtiira li Ammaara bayna shay'ayni illa ñu tànnloo diggante radiyallahu anhu duñ ko tànnloo ñaari mbir lu dul buy tànn ci ñaar yooya bi gën a mëdd lay tànn bi gën a baax loolu rek lay tànn borom bi subhaanahu bokk na tamit ci li nga xamante ne moom la ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, bi ñuy tabax euh, jumaa xamante ne kenn ku ci nekk da nga daan yanu benn móoli yenent am sallallahu alayhi wasallam daan yanu móoli Seydina moo ne ko bàyyil toogal man ma lay yanul say musa maanaam ñu man bu boobaa du ma jël par benn muul par ñaari muul lay jël maanaam muy sa bos ak sama bos bu ko defee yow nga toog waaw bi mu ko defee yeneen ci saa sama xool ko ne ko way xa fi taqtuluhul fi'atul baaghiyatu minal muslimiin ay way yërëm naa Ammaar de moom mi nga xam ne euh, ki nga xam ne moom moo koy rey mooy kuréel bi nga xam ne ñoom mooy bi bi bi beew bi ci biir jullit ñi kuréel gi nga xam ne dafa féttéerlu ci biir jullit ñi ñoom ñoo koy ci biir ñi way gëm ñi. ñoo ñoo koy rey loolu moom moo tax bi nga xamante ne moom la euh, euh, euh, Seydina Muawiya radiyallahu anhu ak Seydina Ali karamallahu wajhahu maanaam bi ñu dee maanaam bi ñu dee xeex ñi ne moom lañ jàkkaarloo ba Seydina Ammar génn àdduna radiyallahu anhu ñu benn te fekk boobu Seydina Muawiya kuréel bi àndoon ak moom ñoom ñoo ko rey ci la eh, eh, abdullah ibnu amr ibnu al as ma ne déggoon naa yeneen bi ne salaa salaam wax nii wa rek mu ne ha kon day moom ci nga gis ñu bëree bëri bëri faq nag daan dem farali ji Seydina Ali ne ha te nga mu yeneen bi ne woon na daal ñi nga xam ne ñoo jàdd yoon ñoom am ñu nekkul ci dëgg ñoom ñoo ñoo ñi am ne ñoo tooñ ñooñu la ñoo ñooy rey Ammaar mu ne hé kon na xaaral kon ndekete dëgg ji fee la féete moom moo tax waa ahlu sunna wal jamaa wuute wuñu ci ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu maam Seydina Ali ci ñoom seen jàmmaarloo Seydina Ali moo amul dëgg waaye li ñu wax mooy ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu ijtihaad bi mu def jaadu na maanaam et que dafay dugg ci li Yonent bi sallallahu alayhi wax naan ñaa maanaam bu alxaakim mu ne iza ijtahada fa afa fa axtaa falahu ajrun wa ida asaaba falahu ajraan su fekkente ne kii nga xam ne moo moom mooy kii àtte dafa am dafa def ijtihaad def effort d'interprétation waaye mu am loo xamante mu jam dëgg gi ñaari fay lay am mooy fay effort gi ak fayu dëgg ga mu am waaye bu fekkente ne dafa juum tamit benn dëgg rek ben dana am benn fayu te waxul fu ñu koy bëggale maanaam waxul ne dana am bàkkaar kon ci kaw loolu ci dañuy xamee ni ndekete Seydina Muawiya radiyallaahu anhu ak ña mu àndaloon ñooñu nekkoon nañ ci maanaam ci ci lañu ne loola donte ak njuumte la waaye mu mëneefuta wax ne ci lu bon lañ nekkoon ngir lu tax ngir ittihaad bi ñu defoon te loolu lu bari day dal yeneen bi sallallaahu alayhi wa ak saxaaba bi radiyallaahu anhum ci seen jamono ñu def loo xam ne yeneen bi sallallaahu alayhi wa sallam danaan kii yow li nga def nii mooy noona am maa kee la nga def du noonu. waaye nag li nga def danga ci am ñaari da ci am ñaari fay te loolu comme comme comme bi incha allah daañ ko gis ci kanam benn exemple ci buntu boobu daañ ko gis incha allah euh, beneen bi ci des mooy euh, Seydina Ammar ibn Yaasir radiyallahu taala anhu maanaam lii lii wax jooju Yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci moom le imam imam ibnu Uyayna rahimahullahu taala ne wax bi Yonent bi ne sallallahu alayhi wa minal mu'minina maanaam li mu ci wax yëpp daal ne ñi koy rey mooy kuréel gi féetéerlu waaye téerewul mu ne minal mu'miniina ci ñi nga xam ne way gëm lañ maanaam mooy ne loolu génnewu ci lislaam te téerewul ñu am martabay iman ànd ak ne yeneen gis nga euh, bi bi xadis bi ko saxaaba la nga naan ko ndax mu mu ne ko déet waxal aw muslim yaa ngi dégg ànd ak fii yeneen bi sallallahu alayhi yëkkati na leen ci maqaamay mu'min kon dañuy xam ne maanaam mbir mi euh, euh, bu ñu euh, voilà maanaam loolu daal mat na bàyyi xel dégg nga moom kon saxaaba la maanaam moom alxaafis ibn Hajar raximahu mu ne saxaabiyun jalilun mashhurun min as-saabiqiina badri saxaaba bu siiw boo xamante ne ci ñu jiitu la ñu njëkk dugg ci lislaam la ba pare waa Badar la nga xamante ne ñoom ba ñu dee bañ leen dee sonal waa seen waa kër di leen mbugal di leen teg mbugal yonent bi sallallahu alayhi wa daf leen a romb ne leen sabran yaa aala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa aala yaasir ndax euh, euh, ndax dig daje ba mooy aljana subhaanallah dégg nga hmm. waaye ñoom ñu muñ nekk ci la ñu nekk daj nañ lu nekk ci diine ji radiyallahu taala anhum moo tax moom mi ngi mi ngi loolu moom mi ngi gane àdduna euh, juróom fukki at ak juróom benn laataa gàddaay gi mi ngi génn àdduna trente septième année ginnaaw gàddaay waaw cinquante six ans avant gàddaay yi génn àdduna trente sept ans ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom euh, mi ngi am ci euh, musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullah lu tolloog soixante-deux xadis maanaam juróom benn fukk ak ñaar ci ay xadis yoo xamante ne juróom ñoom ñoo nekk ci ñaari saxaax bii nag mooy benn bi nee na kon Seydina Ammar ibn Yaasir radiyallahu anhu wax li Omar Seydina Omar ibn al-Xattaab radiyallahu amaat xanaa taskur xanaa nekkoon taskur di fàttaliku annaa naka ñun kun naa nekkoon nañ fii safarin ci tukki ana man wa ant ak yow fa amma daal ant yow falam tu salli julli woo waaw julli wutoon maanaam euh, lu yéemi ndax masala bii mooy ki nga xamante ne moom dafa amee janaaba julliwut lu tax Seydina Omar radiyallahu anhu moom julliwutoon lu tax mu julliwutoon ndax dama jàpp ne ki amee janaaba moom faw mu xaar ba am ndox faw mu xaar ba am ndox kon ki nga xamante ne loolu moom mooy kii ki te te te te te loola Euh, li koy dindi moom mooy li yeneen bi saa salaam wax ne astairu tayibu tahuurul muminu maalam euh, euh, maalam yajidil ma maanaam ki nga xamante ne maanaam li pàkk bu laab bi moom mooy njàppal maanaam mooy ndox ma laabal ki nga xam ne mooy <coughs> ajigam gi te taxuur ndox mu laab la te laabalaate bu boobaa ndox njàpp moom sax ak càngu farat yëpp dañ ci daal di duggaale loolu benn la ñaareel bi ci des mooy aaya bi loolu tuddoon nañ ko sànq Euh, loolu tamit daf ñuy yóbbu ci beneen masala mooy su fekkente ne gis naa ndox gis naa ndox wala boog xam naa ni ndox dana am na waaye mu ngi ñëw te waxtu waa ngi génn ana nan lay def maanaam bu fekkente ne maa ngi ci waxtu wi bu boobaa euh, dañuy daal di li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam xanafiye yi ak shafi'i rahmatullah alayhim ak mbooloo ci maali yi rahmatullah alayhim dañ ne su fekkente ne waxtu wi moom mi ngi fi. waxtu wi génn gut bu boobaa ma xam ne euh, da am na maanaam damaa war a tiim bu boobaa damay daal di rek damay daal di rek euh, euh, tiim mën naa koo tiim ci njaal benn waxtu wi comme te comme mën naa xaar ba jeexitalu waxtu wi ma doog a tiim waaye ma tiim ci jeexitalu waxtu wi moom muy gën ci ñenn ñi waaye lu ëpp ci borom xam-xam yi ci ñii ma leen wax ñoom dañ ne ñu tiim ci waxtu wu njëkk wi moo gën. voilà néegi niku nag ba gi ba ba jeex wala ba contraire bi na maanaam mënef naa tiim ci njaal benn waxtu waaye nit ba ci jeexital bi moo gën loolu lañu wax lu tax ngir ne tiim maanaam jàpp da koy ram da koy ram te lor moo koy waral amma fuqaha hanabila rahmatullahi alayhim ak mbooloo ci maliki rahmatullahi alayhim ñoom tiim ci njaalbeen gi moo gën lu tax ndax julli ci njaalbeen gi mooy gën xaar yéexi ko loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne su ma yaakaaree ndox wala boog ma koy négin ma ma koy ma ma xam ne ah xëy na ma yaakaar ndox wala boog na ndox xëy na mu ñëw ma yaakaar ko waaye dara leeruma ci bu boobaa ma xaar ba waxtu wi jeex ba ci mujjanteelu waxtu wi maanaam ñoom kon bu boobaa teqantal bi ci ci mbir moom lay mooy ndax am naa ndox ci njaal benn waxtu wi wala yaakaar maam ndax yaakaar naa ndox fii balaa waxtu wi génn waaw wala déet su dee yaakaar naa ko ma nekk moo gën su dee yaakaaruma ko ma teel koo def léegi moo gën euh, su fekkee imam waaye nag maaliki imam maalik rahimahullah li mu nootal moom ci boppam te loolu fuqahaa maaliki yu bëri nootal nañ ko rahmatullahi alayhi mooy ma def ko ci diggu waxtu bi maanaam ma nekk ku diggu dóomu def ko ci diggu waxtu bi euh, léegi mu def ne maanaam xanaa bi lay rahmatullahi alayhi ñoom daa iman nga teel ko def moom mooy gën ci ñoom euh, am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy beneen masalam bi nga xamante ne mooy euh, kon waaye teqantal gee gis nga ni teqantal gu rafet la mooy ne su fekkente ne yaakaar naa ndox ma xaar ba waxtu wi di ba ba ci jeexital waxtu wi su dee yaakaaruma ko ma teel koo def ñaareel bi ci des moom mooy bu fekkente ne damaa yaakaar ne ndox maanaam mu leer ma bii paax bii paax mooy ne leer na ma ne dana am ndox mu wuuteeg tamaaman ak bunt bi ñu weesu bii baa mooy leer na ma ne ndox moom mi ngi danaa ko am ana nan laay def bu boobaa te waxtu waa ngi nii day génn masalan tàkkusaan jot na timis ngi waaj jot ndox maa ngi nii di ñëw wala mën naa dem wuuti ji ndox léegi mën naa dem ubbi robinet bi jàpp waaye waxtu wi mi ngi waaj a génn lolu naka lay def bu boba bobu ñaari masala mo ci am bu njëkk bi moy damay ragal waxtu wi génn legi bobu nak mënon nañ ko dugal ci buntu bale masala bi ni ci buntu bi bi ñu wess moy ma nga ragal legi waxtu wi hanafi xanafi rahmatullah alayhi ñoom ci benn cas de figure lañ ko ci yii cas de figure lañ ko daganal moy ma yaakar ne <coughs> masala euh julle la ñuy julle te bu ma fi demee di jappu ji julle gi day fàddu wala boog julli iit te damay ragal ni iit gi léegi day jàll wala boog euh, juma wala julli salaatul kusuuf am maa ñeneen ñi ci des ñoom loolu bu dee juma la du du du problème ci ñoom ndax juma boo mënta ci jàpp tamit maanaam boo mënta tiimit euh, mën ngaa jàpp te tisbaar da koy remplacer yeneen yi ci des naam d'accord nañ ci parce que yooyu euh, mënoo koo remplacer te waxtu wi day romb léegi nag mu des masala bi nga xamante ne mooy ne léegi julli bi ci boppam maanaam benn ci julli juróom la ana nu may def boobu jumhurul ulama muy fuqahaa xanafiye ak xanaa ak xanaabila rahmatullah li ëpp ci ñoom ñii li nga xam ne moom la ñu wax mooy ne du ñu daganal nga dem jàppu ji maam du ñu daganal nga nga tiim voilà du ñu daganal nga tiim maanaam li ñu daganal li ñuy wax mooy dangay dem jàpp ji donte waxtu wi day génn lu tax parce que ak taxaaral maanaam laab gi mu moo jiitu ndax borom subhaanahu wa taala dafa ne iza qumtum ila salaati soo leen jógee dem ci julli na ngeen def lii te tiim du dagan lu dul walam tajidu maa te amoo leen ndox waaye bii baa am naa ndox d'ailleurs loolu la Cheikh Ahmad Tidiane yi wax radiyallahu anhu ne fuqaha yi li ñu wax ci buntu bii wérul maanaam mi ngi ci nam mu fuqaha u maliki yi gis nga euh, lu ci bëri surtout ci waxu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu na bàyyi xel ci buntu boobu day wax nag léeg-léeg lii borom yi liñ ci wax du wala fuqaha yi ci wax wérul fekk li mu ci nam mooy fuqaha u maliki ndax fuqahaa maaliki rahmatullah ñoom dañoo jiital waxtu wi ci kaw laab gi ñi ci des dañoo jiital laab gi ci kaw waxtu wi waaye aaya bi ci jëmmi boppam jumhur la àndal ndax aaya bi dafa jiital euh, ne boo amul ndox defal lii alors fuqahaa maaliki yi ñu bari fi mu dañuy dégg wax jooju foog ne foog mais benn borom xam-xam waxul loolu alors que jumhur ñoom loolu lañ wax li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu mooy waxi jumhur mooy waxi li ëpp ci borom xam-xam mais dama ni fuqaha yi vraiment dañoo dañoo niiwal ci masala boobu maanaam euh, des ne nañoo farlu ci masala boobu ngir ne aaya bi dafa leer loolu ñaari mbir lañ ciy xamee bu njëkk bi maanaam wala boobu bi ci man sax bi may ci gën a retenir mooy bàyyi xel bi muy bàyyi xel alquran yaxu alquran ak yaxu hadis daa iman booy xool ay fatwa moom Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu da ngay faral di gis ne yaxi alquran ak yaxi hadis moo ëpp doole mbooleem waxu leneen ak amul leneen lu comme ñoom imam al Buxaari ni ñuy def gis ngeen daa iman daa iman waxu alquran bu ba am waxu keneen duñ ko bàyyi xel interprétation buñ ci mën a def su fekkente ne yax bi maanaam zaahiru wax ji te amul lenn lu am doole lu ko mën a contredire waxu alquran bi leen ñu jàpp téye ko hmm. waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu même bu dee fuqahaa yi presque ñu ci ëpp ne leen lañ wax te loolu waa ahlul xadis dañuy faral di def noonu euh, loolu moo tax ngi gis fuqahaa maaliki rahmatullah ñoom kitaabu tahaara la ñuy faral bi maanaam euh, wala ba kitaabu boo xoolee ci muwatta masalan da ngay gis dafa indi kitaabu mawaaqitu salaa dooga indi kitaabu tahaara dooga indi kitaabu salaa maanaam waxtu yi la jiital ci kaw laab gi ci boppam alors que euh, jumhur laab gi lañ jiital ci kaw waxtu yi waaye boobaa lan mooy teqale mooy texte bi nga xam ne moom mooy wax waxi laab lan la jiital texte bi ci wax aaya bi daf ni boo leen jógee dem ci julli na ngeen jàpp soo leen waxul ne bu waxtu wi génnee bu waxtu wu génnu teg yooyu te boo leen amul dox na ngeen na tiim waaye booleen amul ndox su dee am naa ndox nag damay jàpp doon ci waxtu waa ngi génn am na li nga xamante ne moom mooy ne masalatu faaqidu tahurayni ku ne xam na ni bokkut maanaam li tax saxaaba yi radiyallahu julli woon te amuñu woon ndox mooy ne yaakaaruñu woon ndox itam naka noonu bu ma yaakaarul ndox itam bu boobaa tiim bu dee sama maanaam même bu dee damaa danaa am ndox loolu tamit damay tiim julli fii cas bi masala bi mooy su ma am naa ndox maanaam robinet baa ngi nii wi nag julli nag bu ma fi neree jàpp euh, léegi waxtu wi day génn boobu la ñuy wax masala bi loolu lay wax ndox maa ngi bokkut ak ndox mi xëy na mu ñëw ak gaa yaa ngi ci yoon bi bokkul de. waaye ndox maa ngi yii waaye nag ragal naa waxtu yu ñëw waxtu yu génn am naa su fekkente ne ndox mi dafa am ndox mi ah, dama julli ba noppi ndox ñëw loolu it beneen masala la julli naa ba noppi tiim naa ba julli ba pare ndox ñëw loolu moo xadis Seydina mooy eh, asar Abdullah eh, eh, ibn Omar bi radiyallahu anhu moom julli naa ba noppi ndox ñëw boobaa du ma reprendre suma julli ba mu des que ni Shaafi'i rahmatullah bu dee da ngaa teewoon ñoom da ngay reprendre sa julli Maaliki rahmatullah ñoom dañ koo sopp nga reprendre sa julli Hanafi ak Shaafi xanaa bi lay rahmatullah bi doo doo reprendre sa julli ngir ne def nga ko ba noppi wallahu taala alam mu ne kon nag xanaa fàttaliku waloolool yow julli woo maam ñoom ñaar dañoo ànd xoolal li xew Seydina Omar radiyallahu anhu nu mu def dafa toog julliwul parce que lu tax dafa jàpp ne amul ndox té mom pour mom janaba du tax nga tim néna am wa am dal nak ana man fata maaktu amna ci benen waaye fata marraxtu manam dama bërëngu fa sallaytu ma daal julli comme ci ñu gis ci benen waaye sa kama tamarraxa dàbb manam ni nga xamantene mom la gis nga fas yi bu ñuy ñun dañuy wax ne ñun wolof yi dañuy wax ne fas buy def loolu day sangu waaw dégg nga dégg ah. Hmm. voilà maanaam bërëgu def nii bërëgu ci suuf si moom dafa ne euh, moom euh, nee na noonu la def maanaam dafa bërëgu ci suuf si comme ni fas yi di def daal voilà comme dafa amee woon janaaba te amul ndox mu daal di dem ci suuf rek simmeeku rek bërëgu bërëgu bërëgu bërëgu maanaam ngir daf ko xiyaasee ci ne comme bu may jàpp dafa am ay cër yu may jàppoo <laughs> comme bu ma waree tiim itam te am janaaba te déggul woon dara ci yeneen bi salaa salaam kon moom day jàpp ne day daal di bërëbu daal di def noonu kon loolu rek lay daal di def <laughs> loolu loolu day saxal xiyaas maanaam xiyaas voilà ne bu ñu xamul àtte diine ci mbir mi te ñu am texte yu ñu mën a eh, yuy tax ñu war a mën a jàpp ne xëy na àtte bi lii la war a doon loola bu boobaa nga daal di koy jëfandikoo maanaam mooy moom dafa xiyaasee ne janaaba yaram bi yëpp la ñuy laabal waaye li mu bàyyiwul xel foofu mooy ne aaya bi bi mu waxee lii yëpp def cee teg rek ne wu bi wujuhikum wa aydikum minhu jeexal masaa leen ci seen xar ak seeni maanaam nga gis ne kon boo xam am na janaaba wala jàpp kon loolu yëpp maanaam tiim gi benn xeetu tiim rek la waaye nag moom déggiwu ko woon noonu loolu tamit day wane ni saxaaba yi radiyallaahu anhum léeg-léeg ak li ñuy màgg màgg màgg ñu def ittihaad boo xamante ne liñ dégg mbir mi du ko tax a demee noonu loolu moom moo tax masalatu qawlu saxaabi yi ndax xujja la lay waaw wala déet loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci maanaam dëgëral ne waxu saxaaba lay lay doon su fekkente ne kenn wuutewul ak moom maanaam lu dul bu fekkee ne beneen saxaaba wuutewul ak moom. waaye bu amee saaba bu wuuteeg moom rek dootu nekkati lay ngir ne ñoom ñooy gën a xam atte yi diini ci ne nga mën a tey maanaam euh, probabilité wu ne la mu wax da koo jàngee ci Yonent bi sallallahu alayhi wala ci kenn ci yeneen saxaaba yu mag yi radiyallahu anhum maanaam day daal di foor day daal di rëy dégg nga nee na fa zakartu nee na ma fa ma tudd li nabi ñeen Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kon xam nga gis nga nee na moom mu bërëngoo rek daal dem julli ji nee na nag fa zakartu ba tudd loolu li nabi ñeen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa xaala mu wax an nabi yenente bi wa sallam sax <laughs> kaa mooy kaana nekkoon na rek yag fii ka di la doy hakaza nii lii rek doon na doy na fa daraba bu dóor an nabi yenente bi ka fii bi ka fay ci ñaari tënkam yi al suuf si mm-hmm. wa nafaxa mu daal wol fii himaa ci ñoom ñaar mu wol ci ñoom ñaar daal di def nii dinañ ko gis ci benn réew waa taasaala mu daal def nii waaw non nii waaw day day day suuf si ba pare daan def nii ëf leen li ci mën a ne waaw doog a doog a waaw doog a doog a tiim dégg nga topp masaha mu masa bii maa ci ñoom ñaar wajoo xar kanamam wa kaffayhi ak ñaari tànk bi waaye daal ñëw ci ordre bi incha allah ngir ne loolu beneen yeneen i masala la incha allah daan ñëw ci ordre bi nga xamante ne noonu lañ koy defee wala ngir ne fii gis nga daf ni xar kanam bi ak tànk yi bi ci des mu ne euh, euh, alquran ni mu ne fam saxu bi wujuhikum ba pare wa aydikum minhu masaa leen ci seen xar kanam ak seen tànk yi yooyu yëpp masala la yoo xamante ne incha allahu taala Eh, danañ ji ñëw mu ne dégg nga kon xadis eh, bi eh, imam al bukhari indi na ko ci xadis bi indi dina indi wat dina ko indi indiwaat ci xadis numéro 339 340 341 343 344 346 347 ak 300 waaw kon loolu da da koy imaam imaam muslim rahimahullahu taala inna ko xadis cent 368 ci ñaari yoon imaam abu daawuda sijistaani inna ko xadis numéro 321 322 ak 327 imaam an tirmisi inna ko xadis numéro 144 imaam an nasaayi inna ko xadis numéro 312 313 316 317 318 319 ak 320 imaam ibnu maaja inna ko xadis numéro 569 imaam ahmad ibn hambal moom indi na ko ci juróom-ñeenti bërëb ci euh, musnadam rahmatullahi ala aljamia kon waa gis nañu waa asxaabu kutubu te ñoom ñëpp ñoo indi xadis bi rahmatullahul jamia xadis bi nag imaam al comme ni ñu ko gisee ci kitaabu tayam moom daanaka moom lay répété waat lu ci bëree bëri ba mu ba mu des euh, ci yu mujj bi mu ne baabun bunt bi bunt bi nee na buntu bi at tayam mu tiim lil waji ñeel na xar kanam gi wal kaffayni ak ñaari tenk yi euh, li nga xamante ne moom moo mat a xam fii moom mooy xar kanam ak tenk maanaam tenk moom mooy euh, loxo bi ba ci tikku jara yi euh, yooyu yëpp amul benn meloy tiim ñaari xadis nga ci wér mooy xadisu abu juhaym radiyallahu anhu bi ñu romb ak xadis sayyidina Ammaar bi radiyallahu anhu dong moo wér ci meloy tiim yeneen xadis yi ci des yëpp wéruñu مسلمنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم، بمنا التيمم ضربة ثاني ضربة للضربة لل لليدين إلى إلى المرفقين حديث بوكبير أك حديث ينن ينورك موم مولم ينن حديث يوحت والو تيم يب بن ويروت بوم دس نياري ملوي تيم لول موم موتا بروم خم خم رحمه الله عليهم يعني. Euh, wuute ci naka lañuy ñuy àttee aaya bi nga xamante ne moom la wax waaye ngir ni ñu interpréter aaya bi tamit daf dafa dugg ci ni nga xamante ne ni ñu déggee aaya bi dafa dugg ci ni ñuy déggee tamit nan la ñuy àttewee aaya bi maanaam nan lañuy ñuy àttewee tiim waxu tiim euh, insha allahu taala dinañ ci ñëw mu ne qaala bil isnaad al muttasili fi awwal al kitaab ilayhi xaddasanaa xajjaaj maanaam jëmmi xadis bi lay waaye mu indi solo ko ci beneen sëriñam muy xajjaaj ibn al minhaal al anmaati rahimahullahu taala moom waa basara la abu muhammad moo nekkoon dàkkantalam moom mi ngi génn àdduna 217e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa Ah, moom mi ngi solo ay xadis ci qurrata ibn xaalid ak shobata ibn alxajaj ak juwayrata ibn asma ak hammam ibn yahya ak yazid ibn ibrahim ak tustari ah, ak salama ci wa ci waa basara ak abdul aziz ibn almajishun ak imaamu malik rahimahullahu taala ak ñeneen ci ñooñu ñëpp la solo xadis amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy imaam al ci saxeexam moom rekk moo solo ci moom ci lu amul dig-dig la ñi ci des ñëpp bi ñu so soloo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom mooy waa sahabu kutubu sitta yëpp soloo nañ ay waaye faaw dafa am ku dox seen diggante ak moom imaamal Buxaari yi keese mooy ki soloo ci euh, moom euh, rahimahullahu taala euh, amma ñeneen ñi soloo ci moom ñu mel ni sëriñu imaam al Buxaari comme Ishaq ibnu Mansour alkawsaj ak abu muhammad addarimi ak abd ibn humayd ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala aljami moom mu ne qaala axbarana shuba waxoon nañ ko léegi mooy qaala axbarani alxak mooy ibn alxajjaaj waxoon nañ ko léegi moom mooy mu ne qaala axbarani alxakam te moom mooy uta ibnu utaybata alkindi waxoon nañ ko léegi an zar mooy ibnu abdullah ibnu zurarata alhamadani an Saïd ibn Abdurrahman ibn Abza moom mu jëlee baayam Abdur an abihi baayam muy Abdurrahman ibn Abza an qaala mu ne qaala Ammar mooy ibn Yaasir radiyallaahu anhu ñi ñëpp gisoon nañ leen léegi mu ne bi haada ci xadis bi waaye bi mu ko nettalee daf ne innama li am ba des mooy kaana nekkoon na rek yeg fii ko doon la doy haakaza nii fa darabam nee na mu dóor annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko fay ci ñaari tànkam yi al arda suuf si wa nafaxa mu daal di wol fii ci ñoom ñaar maanaam dafa dóor loxom bi nii ci suuf si daal di wol ci ñoom ñaar xam nga xadis bële boo xoolee daf koo indi woon maanaam da koo njëkk ko indi ngir leeral ne dañuy ëff ci suuf si kenn loolu na la waaye sunna la ci loo xamante ne bërëb boo xam ne dañ koo mën a am maa ci bërëb su lu demee nekk xeer yeeg yooyu loolu daan ci ñëw insha allah loolu mënee fukkee wax ne na la <coughs> ndax xadis abu juhaym bi radiyallahu taala wax nañ ne la sànq ne la ñaari xadis yooyu rekk wér ci mboolem xadis foo rombe xadis muy wax melo bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan tiime xamal ne wérul bu fekkente ne du ñaari xadis yi ñu romb dégg nga nee na wa euh, nee ba mu defee noonu wa dara daraba mu daal di dóor soobat soobat ibnu xajaaj ah bieda yi ci loxoom yi al arda suuf si rahimahullah su ma topp nag adnaahuma mu jege ñi leen min fii ci gémminam su ma topp dégg nga mu jege ñi leen ci gémminam maanaam dafay wane ni yeneen bi defoon sallallahu alayhi wa sallam fa dóor moom it moom Shu'ba rahimahullah def ni nee na ma topp masaxa mu masaxa abihimaa ci ñoom ñaar wajoo xar kanamam wa kaffayhi ak ñaari cànqam tiim li ci gën lii mooy tiim waaw yooyu dinañ ci ñëw insha allah wuute yi ci borom xooxam yi indi mais tiim yenent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lii doy na bu ma defee nii di wala ma jël raay li may raayo ma def nii def nii doy na pare na wax ñu naan tiim moo gën a compliqué njàpp ak moo gën a kii loolu amul ah. kii moo gën a yomb lépp kii ma ngi ah voilà par contre njëkkee loxo yi dañ ci ñëw insha allah njëkkee loxo yi tamit mën naa ne ndax euh, toftale gi nekku ci farata dégg Ah, waaye foofu borom xam-xam yi rahmatullah am gën ci wuute ci loolu nag li ñuy ñëwlee mu ci masala boobu mooy ne ñoom dañoo jàpp ne ah, dañoo dañoo jàpp ne suy may tiim ah, maanaam fuqahaa u li maanaam xanafiye yi ak chafiye yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne tiim ñaari dóor la benn loolu dèjà benn la wuute bu ñu am la ak ak ak ak ak Maliki ak Xanaabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ñaari dóor la ñuy dóor te loolu farata la ñaari dóor yooyu mooy da njëkk def nii def nii def nii fa xar après nga dóoraat beneen nga doog a def nii maanaam kon nga daal di masaa li ko dalee ci catu baaraam yi ci kaw ah di wàcc ba ci concu gi ci loolu mooy zaahir bi ginnaaw bi nga jël baatin bi nga def nii après mu des massa yi nga xam ne moom ngay massa baaraam yi ak noo ko defee baax na nga defaat la même chose loolu mooy tiim ko kon mooy ñaari dóor yooyu loolu mooy waxu xanafiya yi ak shaafiya yi ñoom fi ñu tegtaloo nag mooy aaya bi dane comme daf ni jàpp jàpp ngeen raxas seen loxo yi ba ci conc yi kon bu boobaa tiim itam bi nee ngeen masaa seen ngeen ngeen massa seen xaar kaanam yi ak seen loxo yi tamit bu boobaa dañ koy daal di yóbbu comme ci njàpp la maanaam ñoom seen dalil ak itam xadis yi wax ñu xadis na Umar ibn ak ñu mel ni ñoom te yooyu yëpp benn wéru ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy maaliki yi ak xanaa bi lay rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne tiim daal ñun xamuñu ci loolu yëpp tiim gii rek mooy li ma leen sax li yeneen bi jàngale nii saa sax mooy xadiisu Seydina Ammaar bi radiyallaahu anhu nee na ak lii la am wuti sauf que Maaliki rahmatullaahi dañ ne loolu mooy farata ci tiim amma les xanafiyee saafiyee wax rahmatullaahi alayhim loolu mooy tiim gi mat waaye lii moom mooy li doy comme li yeneen bi saa sax waxal lii dana la doy teqantal googu la fuqahaa Maaliki wax rahmatullaahi alayhim moo tax ñoom dañuy wax ne ñaari dóor la waaye xaqiiqatan comme xadiis yi bii moo ci wér te amul beneen bu ci wér yenent bi saa salama lii la jàngale xaqiiqatan mënuñoo nootal lu dul lii voilà donc voilà ndax xadiis yi wéruñ am na sax xadiis yuy wax ba ne ba ci ñëw ba ci ba ci poqataan bi ba ci bagg yi ak yeneen yeneen yëpp wéruñ waaye nag maanaam ngir def li gën maanaam li nga xamante ne boo ko defee ñëpp dinañ ne sa tiim baax na mën ngaa doxalee ne la ngaa tiimee ne waaye nii doy na te yeneen bi salaa salaam lu mu ne doy na xaqiqatan vraiment doy na waaw yeneen moom salaa salaam vraiment bu ne lii doy na doy na ko ah voilà Euh, loolu waaw moo tax toftale gi moo tax euh, toftale gi ñoom ni ñu koy toftalee bu dee mooy nii rek mooy mooy dóor ni def nii def ni mooy bu njëkk bi bi ci des ñu dóoraat def nii maanaam def comme ni ma leen wax léegi am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa xanaa euh, bi lay rahmatullah alayhim ñoom ordre bi taxu koo bari solo te ni alquran waxe bi wujuhikum wa aydikum minhu boobaa noonu dañ koy d'accord beneen bi ci des nag mooy baatu aydi loxo fu ñu ko jooyee ci alxuraan te waxuñu ba nàngam mooy ne loxo bi fi ñuy dagg fii la ndax même sàcc bi loolu as-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allah fii lañ fii rek la ñuy dagg sàcc bu góor bi bu jigéen bi nañ dagg seen loxo yi rek la wax waxul ba fan fii lañ dagg te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalil beneen bi waree ni noonu rek mooy tiim mooy ne yeneen bi saa salaam bi muy wax daf ni lii doy na te dañu nii nii nii defal nii te bu doon ne def na jàpp tiimee neneen yeneen bi saa salaam noonu la ko jàngale dégg nga ah, te xadis bii dañ ciy jàngee tamit ne ku mag mën naa riiri loo xam ne ku ndaw xam na ko ku ko gën a ndaw ndax xam nga li yéeme te daan ci ñëw insha allah moy sayyidna umar ibn khattab radhiyallahu anhu biko sayyidna umar di nek li mbir mi mom jàpp na ni no mom xam ko woon fàttaliku ko de nga mu ne wa qala wax na an nadrate mom moy ibn Shumayl ibn Xarashata ibn Zayd al-Basri al-Marwazi rahimahullah taala moom tam waa Basra mi ngi génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy Abul Hasan al-Basri Euh, moom euh, waxoon nañu ne euh, moom maanaam waa saam kutubu sitta solo nañ ay xadiisam ah, ndax sëriñ la ci sëriñ ñoom imaam al moo tax moom mu waaye daf ko indi ci fii nii mu daal di koy indi mu nekk mutaabaa waaye imaam muslim rahimahullah taala jëlee na ko ci Isxaaq ibnu Mansuur te moom mooy al Kawsaj an Nadr ibnu Shumayl rahimahullahu taala ci benn ci même riwaaya bi mu ne axbarana xabarana shobata mooy ibnu xajjaj an xakam ibnu otaybata te mooy ibnu otaybata alkindi an zar te moom mooy ibnu abdullah ibnu zurarata alhamadani yaqulu muy wax ne an ibn abdirahman ibn abza moom mu ne an ibn abdirahman ibn abza dégg nga من قال أن الحكم نال وقعد سمعته تمن ما كديك ما نمجر نه الحكم وخلنا لا كم دني كوي جين تدريس وأنا وقعد سمعته من ماكو كديك من عبد الرحمن تي عبد الرحمن من عن أبي مجر كتبان أنه وقال نال من قال عمار وحنا عمار نال تقول تمت جسون منكم من قال حدثنا بلسنا المتصل في أول الكتاب لي ولا نو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 Oh.